jërë jëf mbokk téléspectateur yu télévision Futur Média dalee nag jàmm ci di jotaayu euh, xibaar li ci gën a fës te ñu ndam ko jukki dina bokk ci mbas meeg tolluwaayam euh, ci mim réew jàppale na ni ki démb ñeenti doomi aadama daal nañuy toftalu ci lim bi nga xam ne ñoom ñoo ci jot dëddu ñaar téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom-ñetti cas euh, positif la ñu am jamono yi may wax ak yenn mbokk yi député ñu nga sëgg ca projet de loi bi ñeel wàllu état d'urgence ak itam état de siège ñu ngi koy amal assemblée nationale gis ngeen ko noonu waaye itam am na ñenn ci ay député yoo xamante ni ñu ngi féetee ci kuj gi jàpp ne lu ni mel du ca daal daal nañ koy dëmmooyu ndax itam li ñu xamle moom moo di njiit bu réew bu Sénégal dafa bëgg noot askan wi lu ñeen seen dem ak seen dikk ba tax itam mu bëgg amal mbir mu ni mel ku ci mel ni Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly ak ñenn ci ay ñoñam jàpp ne daañ ko yóbbu ca conseil constitutionnel daañu dem itam ci assemblée nationale boobee ngeen gis fekk fa suñu ndaw Modou Fall mu daal tukkee ñu seet jaari euh, saw ab stag la woo xamante ni nag ay étudiants yu sénégalais yoo xamante ni ñu nga ca réew bu euh, France ñoom ñoo ko daal di amal ngir rek euh, ñu gis seen ab naataango wii lee nga xam ne dafa réer boobaak léegi gis ngeen ko noonu moom jaari saw ñeenti fan ci weeru janvier ba tey la réer mër buñ ci noppee daan ci toftal yéen kaay yi xëyee niki tey ji ci altine ji mbokk yi léegi léegi ma dikk ñu faram fàcce jërë ngeen jëf mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu rafetlu ànd bi ak télévision Futur Média xibaar yi nañu ko junjee woon ñeenti doomi aadama daal nañu toftalu euh, ci lim bi nga xam ne ñoom ñoo dut dëddu ci euh, waame mi euh, ñaar téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom-ñetti cas positif la ñu am junni ak juróom-ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar test la ñu def nag téeméer ak fukk ak ñeenti cas contact la ñu am téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeenti kaa communautaire di ay doomi aadama yoo xamante ni nag am nañu mbas mi te xam ñu rek fan lañu ko jëlee téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent ci aji tawat jamono yi nag daal dinañuy euh, wër. mbokk yi maa ngi leen ko doon dunju sànq bi ñu door yi la jotaayu ah, xibaar ci assemblée nationale nag ñoo ngay ah, sëgg ca projet de loi numéro 46 ah, 2020 nga xam ne rek de coppi loi numéro 69 29 bu 29 avril 1960 mu ñeel wàllu état d'urgence ak itam état de siège njamono yee nag loole ñu nga koy vote ca assemblée nationale ñenn ci ay député yoo xamante ni nag ñu ngi féete ci kujj gi jàpp nañ ne mbir mu ni mel Euh, du ci dal ndax itam nguur bu Sénégal wala boog njiitum réew mi euh, dafa bëgg tënk lépp loo xamante ni dafa soxal wàllu dem ak dikk wu askan wi ku ci mel ni euh, Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly ak ñenn ci ay ñooñam nag jàpp ne daañ ko yóbbu ca conseil constitutionnel ngir rek dummóoyu boobu le loi nga xam ne nag bëgg nañ ko amal ñu dem ci assemblée nationale mbokk fii fekk fa suñu ndaw la nga xam ne moom moo fa toogal télévision Futur Média jamono yi di Modou Fall mi ngi ci bu jokko bi ngi lay nuyu. Modou Fall bu fekkee mu ngi ci bu mu jokko bi may fàttali rek ne ma nga ci assemblée nationale ngir daal di ñuy euh, tënk la nga xam ne moom moo fa jot euh, tukkee moom euh, Modou Fall ci loi boobee nga xam ne nag jamono yi ñu ngi koy voté Modou Fall maa ngi lay nuyu. maa ngi bu fekkee mën nga yëkkati sa baat tuuti ndax dégg-dégg bi mën a neex. waaw maa ngi lay dégg Modou Fall lan lañ mën a jàpp ci assemblée nationale jamono yi. jàppal ni député yi ñu ngi ci biir yow huit ñu def ñun nag journaliste yi ñu ngi ci biti waaye si euh, wax boobu ngay wax bi euh, Cheikh Mbacké Bara ñu woone si nga xam ne moo di Serigne Bara Dolly léegi léegi la ñu raccroché ak moom la ñu xamal ni euh, kon du mën a génn ndax bu génnee ñii dañu def lu leen neex ñu dégg nag ay coow ca biir kon député yi ñu ngay sëgg ca loi bi su jéggi di kujjee. waaye waa ñoo lànk ñi nga xam te ni ñoom dañoo programme woon ñëw fii tey kon ah, ànd ak kuréel ngir ñaaw lu ñu mel dañoo mujj rek kon ñoom ah, tànn kenn ci ñoom mu ñëw ngir ah, mooy li nga xam te mooy rassemblement kooke ba mu ñëwee nag kon jëmbal na lettre bi assemblée nee na nag président assemblée nationale lañ ko jagleel mu di Moustapha Niass waaye ca jëbbalub lettre bi takk der yi takkoo ko escorté mm, teg lettre bi ci bunt bi moom ñaawlu na nee na yeggul ca bureau courrier booba mu génne nag ko war a wax a taskatu xibaar yi ci buntu assemblée dañ ko exporté itam génne ko ba ñu tolloo ko buntu Sorano foofee daal mujj àddoo moom kon coordonnateur ñoo lànk boobu lay daan ko dégg ci suñu yeneen ëpp xibaar waaye la mu njëkk ci nee na lii bu jàllee ne sénégalais yi xam ni jox nañ Macky Sall gànnaay boo xamante ni dana wëlbatiku ci ñoom di sàkku kon ci député yi euh, ñu conscient bañ a wote bi les lois jamono ji nag ñun journaliste yi ñu ngi ci bunt bi xam ngeen ko ni ñuy wax di jotee di xaar nees député yi génn ba xam ñu wote wala du ñu wote lu mën a tukkee ci assemblée nationale bi fii tey naañ leen ko dëgtal Cheikh ñu dëgtal ko Sénégal yi jërëjëf Modou Fall ñu bàyyi la nga toppal ñu uh, lay tukkee ci assemblée nationale du ñàkk itam suñu yeneen jotaayu uh, xibaar daañu am la nga xam ne uh, moom nga fa jëlee ñu wëyal yile jotaayu xibaar mbokk yi wax leneen loo xamante ni wute naa ak assemblée nationale nag mu mel ni directeur général bu ASP yi moom Biram Faye moom mooy ñaawlu li nga xam ne nguur gi daal dina koy tënk jamono yi te yenn ci ay ndaw sàmm wuñu ak loolu mu jëm ci couvre-feu yu ni mel muy sàkku ci ndaw ñi nekk ku ci nekk. bàyyi xel ne jàngoroy coronavirus mi ngi fii ci réew mi ba tax itam ku nekk war ngaa mën a def xeex bi sa yëfu bopp Aminata Goudiaby bi ak Abdou Karim Bey ca diwaan bu Fatick. directeur général bu agence sécurité de proximité nag moom rafetluwul benn yoon manifestation yu bëri yi nga xam ni moom la ñu nemmeeku ci ndaw ñi gannaaw ba ñu amalee couvre-feu ci région yu Dakar ak itam yu Thiès mi ngi sàkku ci ñoom ñu gën a responsable te itam di leen fàttali ne nguur dafa jël décision bu ni mel ngir rek aar ñi ñi ci li nga xam ni moom moo di feebaru Covid 19. teguñ ko fenn di wax population yi aussi que dogal yi état bi jël pour ñoom la pour la pour aar leen la ñu war a góorgóorlu te li état bi jël ay dogal aussi pour ñoom la. ci Fatick nag xamante ñi ngi ñuy suivre ci centre de traitement des épidémies bi nga xam ne moom moo nekkee ci hôpital régional bi cas communautaire yi delluwul ginnaaw te moo ne de am na ci ñoo xam ne ba léegi geste barrière yi fu laaluñu ko. ci réew mi nga xam moom la ñuy jàppale moo ñu fi teg moom moo tàllal ñëpp loxo gannaaw góorgóorlu nga xam ne état bi nga koy góorgóorlu waa Sénégal yi war ci jàpp Fatick encore une fois di leen ñaan nag ku ci nekk li nga war a def nga def ko état bu ngi def liggéeyam mu ngi leen di dimbale jàppale ménage yi jàppale entreprise yi les forces de défense et de sécurité bu aussi ànd ceeg ASP yi ñu ngi koy def mais nit ñi aussi ku ci nekk na nga dogal yi ministère de la santé digle ku ci nekk na nga respecté barrière yi ndax feebar fi mu toll tey jéggi na dayoo. moom mi nga xam ni nag moom mooy directeur général bu ASP te itam di responsable politique APR ci Fatick ci week bi jox na lu tolloog douze mille inspection de l' éducation et de la formation ak itam yeneen produits d'hygiène loolu nag di loo xam ni dana tax ñu gën a mën a xeex feebar bi ci école yi. jaaxle woon nañu naam état bi mu bi mu ngi def lu mu mën collectivité territoriale yi def lu ñu mën mais xam ngeen moyen mosul doy donc c'est pourquoi l'acte la au nom de l'inspecteur d'académie de Fatick maa ngi ko ciy remercier bu baax li ngeen posé nii defalu leen ko IEF bi defalu leen ko kenn seen bopp ngeen ko defal. moom IEF bu Fatick nag di fàttali ne ñoom saa su nekk ñi ngi amal ay visite ci école yi ngir gën a sensibiliser élèves yi ak itam ñi nga xam ne ñoom ñoo leen di jàngal ci ñi nga xam ne noonu la ñu war a respecter mesures yi nga xam ni moom la kilifa yi digle beneen ab kilifa boo xamante ni nag euh, mi ngi digle euh, jamono yi mbir mu ni mel Aminata Goudiaby di xalif bu Koyel ci euh, ziar wi nga xam ne ñu ngi koy faral di amal at bu yàlla sàkk ca commune bu Médina Sabax moom nag jàpp na ne jamono yi nag war nañoo mën a amal ay ñaan ci alxuraanul karim ngir rek jàngoroy mbas mi doon loo xamante ni dañ koy fàttaliku fii ci réew bu Sénégal naam nguur bu Sénégal mi ngi jéemi pexe jamono yi ñu teewlu reportage bu Ibrahima Diame ak Fally ziara bu koyel amal nañ ko waaye nag daal nañ respecte bu baax a baax lii di mesure barrières yi pèlerin yëpp daanaka ñëpp sol seen i masque lu jëm sax ci wàllu ñaan yi daanaka lépp dañ ko concentré ci lii di xeexum mbas mi eh, tàllal loxo yi ñaan yàlla ci barke mag ñi ñaan ci alquranul karim ñaan ci darajaay yonent bi sallallahu alayhi wa moo taxoon tey ñu daje ñaan yàlla. Mouhamadou Ismaïla dem yore kàddu kii di xalif bi nag di woo ñi di kilifa yi diine yi ñu gën a baral ñaan yi ci lii di xeexum mbas mi ndaxte jàpp na ni loolu bokk na ci li fi sës ngir jëlee ko fii. parce que war na ma bu doon piqûre dong wala ñàkk dong feebar bi du am Amérique semaine feebar bi du am Europe semaine kon nag comme que ñoom jéem nañ jéem nañ jéem nañ ñun jullit yi moom telewuñu li ñu war mooy ñëw tallal borom bi tabaaraka taala loxo ñaan ko incha allah. incha allah bi jaahi nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ci barke mag ñi baax ñi ñu ngi am rafet njott ne ziyaare Koxel incha allah nekk sabab jàngoro bi jëkk ci adduna bi nekk sabab jàngoro bi jëkk ci adduna bi. yàlla na ko fi yàlla jële bi mu jeeg tag bi jaay na bil musaba ziyaara bi nag doonoon itam occasion pour xalif bi ngir jaajëfal euh, gouvernement bi ndax réalisation yi mu fi jot a def waaye itam sakkuwaat ko rek mu gëstuwaat leen ndax lu jëm ci seen juma ji ragal nañ lool mu daanu ndax magetaayam bu jéggi dayu ci yar ak teggiin lañuy ñaan kilifa yi nañu jàppale suñu jumaa ji jumaa bi ñu ngi ko tabax 1976 te bankoo la ciment mooy liñ ko raake su dul loolu amul sima te daaw waxoon naa ko ñu ngi am yéene ñu ngi ci waajtaay bi pour defar ko waaye yéene pekk bu ci gën a gaaw mooy kilifa yi jàppal ñu si bu ñu daan xaymaa nag lu jëm ci wàllu réalisation fii ci cité bi de bokk na ci piste bi nga xamante ni def na ñetti kilomètre daal lëkk lëkkale kon dëkku diine bi ak route nationale bi waaye itam courant bi nga xamante ni andi nañ ko te ñu taal lamp yi ci veyu événement bi. maa ngi leen ko doon junju sànq bi ñu door yi la euh, jotaayu euh, xibaar étudiants sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca diwaan bu France jamono yi nag ñoom ñu amal ab astak ngi rek ñu daal di euh, seet jaari saw maanaam ab xeexta boo xamante ni nag ñu ngi ko jaarale ci xarala yu yees yi ngi rek ñu mën a gis doomu réew bu Sénégal bi nga xam ne boobaak léegi mu ne su ko tëggat ci ñeenti fan ci weeru janvier ba suñu jon yàllaay teel Alxasan Ba def na ci ab tënk ñu seetaan léegi enquête bi nga xam ne ubbi nañ ko ngir fexe ba li nga xamante ni moom mooy euh, réer gi mu réer moom jaari sow euh, joxe gut dara ñu ngi wéy nag di wër ki nga xamante ni moom mooy élève bu gënoon xarañ fii ci Sénégal atub 2018 ak 2019 jamono ji ci xarale yu yees yi ñu jàpp ni ab hashtag la ñu teg retrouvons jaari Sow mooy ñu fexe ba gis jaari Sow loolu dana tax ba ñu gën a harmoniser lu jëm ci xabaar mooy wër gi ñuy wër moom étudiante sénégalaise bi depuis ñeenti fan ci Europe janvier atub 2021 gi lañ ko gëj a gis moom jaari soo ba tax na nag kilifa yu fare fii ci Sénégal ak yu fare ci France police française ñu ngi woy nag di wër ki nga xamante ni moom moo di jaari Sow association étudiants sénégalais yi nekk foofu foofule ca France itam daal di eh, ci dibeer gi taxawal ab campagne distribuer ay flyers eh, ci mbedd day treizième arrondissement ca Paris ngir fexe nag ba gis ko ñu fàttali itam moom président Macky Sall ginnaaw bi mu yëgee xabaar yi ci saa si la joxe ay instructions ngir ñu fexe nag ba taxaw eh, ci li nga xam ne moom moo di gis moom jaari Sow moom jaari Sow moomule ñuy fàttali nekk étudiante ñaareelu année préparation lycée Louis le Grand ca Paris ay bés a ngi ni nag kenn tëggu ko gët yàlla nañ ko gis ak jàmm alxasan ba yeneen i yoo xamante ni ñu ngi nekk fii ci réew bu Sénégal ñi nga xam ne nag ñoom ñoo nekkee ci université euh, virtuelle ñoom ñoo ñooy nag jamono yi xam ne rek nañ ne ñu ngi dund ay jafe-jafe ci seen wàllu njàng lu ci mel ni wàllu connexion beek ordinateur yi ak yeneen mbir yoo xamante ni ñu ngi làmb ci euh, si biir ñu teewlu président euh, bu fédération des étudiants de l'UVS Mohamed Ndiaye lay wuyoo Ibrahima Diame ak Faly Gaye ñoom ñoo taataan ay kàddoom. bu si ñëw dañ lay jéem a euh, wan la nan ngay def ba nga xam di nga adapté ak ak système bi maintenant adaptation boobu noonu dafay am ay problème parce que tamit euh, réseau bi day bañ wifi bi c'est-à-dire bi day xaw a doy waar aussi étudiants yi dañuy jooy euh, machine yi nga xamante ni nekkul nekkul nekkul jumtukaay yu war pour que ñu hmm? bon daaw am na daaw am na mais ren jii ñun dañaa jóg dem ba ci euh, administration bi dem aussi ba ci euh, ministre ñu toog ak moom jox ko suñu doléance wan ko ne ko lii moom moo fi doon am te bëgguñ mu demee nii ñun lii lañ bëgg mu demee voilà ñu waxtaan seen moom waxtaan bu yaatu donc mu am ay promesses yu ñu wax mu mu dig ñu ay dig yu bari maintenant ci dig yooyu gis nañ ne am na yoo xam te ni mu ngi réaliser wu donc am na yoo xam te ni tamit départ agut euh, maintenant xam naa ne ci biir mois bii nii danañ jëm a teniraat beneen ak moom beneen réunion toog jéem a càmbar mbir mi xool lan moo avancé ak lan moo avancé wu ñu jéem a réglé loolu noonu H5N1 ab virus la woo xamante ni nag day faral di faat ñi nga xam ne ay mala lañ nag ñu ngi ko gis ca diwaan bu Pout bi ñuy jeexal atum deux mille vingt ci weeru décembre bi le nag ba tax itam li mu tëral wala bokk li mu fàtte ci ay jur bari na docteur Amadou Guèye moom mooy coordonnateur bu interprofession avicole fii ci réew bu Sénégal moom moomee sax nag moom moo nekkoon ganuk info du matin naka noonu dikkaat na ci wowule virus teewlu ay kàddoom. Aviette dugg na Sénégal mais bettuñu parce que amoon na ci àdduna bi ñu jàppoon ñun ni mën na fi dugg depuis mille cinq ñu ngi liggéey ci loolu ñu ne ah amagu fi nag waaye mën na fi am lan la ñu war a def moo tax euh, pour tontu sa question grippe aviaire bi ci benn poulailler la feeñ benn poulailler rek mu ngi ci àllu puut bi àllum kaañ poulailler bi ci kàttanu yàlla sori na nit ñi sori na tali bi jegewul benn poulailler donc tëj foofu feebar bi dafay yomb. donc pour tëj feebar bi lan lañ def li procédure bi bindoon li ñu préparé woon la ñu def rek maanaam ginaar yi yi nga xam ni feebar nañ ba dee ak ya deewul ñen nekk ci poulailler bi produit aliment bi desoon euh, litière bi fa nekk lu fa nekk ci ci produit ñu boole ak ginaar yi suulaale suul boobu dafa am nu ñu koy suulee noo xam ne doomu jàngoro bi du mën a génnaat jëm ci ngelaw bi du mën a dugg ci ndox mi maanaam dañ koy tëj dafa procédure nag bëgguma dugg ci terme technique yi euh, fi ñu toll daal mooy benn poulailler la fi jàngu jàngatu feeñ poulailler boobu rey nañ ginaar yi gas nañ leen suul ñu ngi ci nag gëstu gëstu fan la feebar bu jóge mais loolu nag dafa laaj ay procédure dafa laaj temps service yi nga xam ni bokk nañ ci yëpp ñun interprofession les spécialistes les vétérinaires suñu collègues yëpp ñu ngi ci pour xam feebar fan la jóge mais loolu li gën a jàmp daal mooy tëj feebar bi foofu te pour le moment ba tey ma lay wax ni benn foyer boobu rek moo fi amagul te tëj nañ fa feebar. dalal xelu Sénégal yi xelu consommateurs yi xam nga c'est que ni bëgg ginaar dama leen bëgg a wax ni mën ngeen lekk ginaar te risque wu leen feebar bi parce que feebar bi munul jaar ci li ngay lekk loolu scientifique yëpp d'accord nañ ci. feebar mënul jaar ci li ngay lekk munoo lekk ginaar wala lu jóge ci ginaar nga am ci feebar bi donc seen xel dal vérité scientifique la feebar bi munul jaar ci li ngay lekk donc lekk ginaar comme nañ ko doon defee nañ ko continuer li ñu war a def lépp pour feebar bi yam ci ginaar yi bañ a tas fenn ñu ngi koy def mais daal feebar bi niñ jàpp ni de façon claire et péremptoire de façon vraiment une vérité scientifique que feebar bi mënul jaar ci yàpp ginaar bi ngay lekk Jaka Fodé mbokk yi ak juróom-ñeenti village yoo xamante ni ñu nga nekkee ca Sookodu nag jamono yi ñu ngi woyee ci ay jafe-jafe xal yi nga xam ne kenn mën na saa jaar yenn ci ay soxna dañuy faral di mucc di ami jafe-jafe ba taxitam ñuy sàkku ci nguur bu Sénégal mu daal di leen di bàyyi xel ñu teelu reportage bu Bakary Konté ak Xali Jàmme foo dee ak juróom-ñeenti yeneen village yi nekk ci du ñoom nag ñi ngi ci ay jafe-jafe yi tar pour dugg ci dëkk lu yooyu le lu jafe la ndaxte yoon yi dara baaxu si. fii euh, dafa nekk zone bu nga xamante ni dafa ruqe pour bañ a wax enclavé dafa ruqe kon soxla nañ ay yoon soxla nañ tamit ay écoles yu baax mais aussi soxla nañ. ndox mu sal bu ñu naan loolu tamit beneen problème la hmm. donc soxla nañ ay yoon yu baax soxla nañ ndox mu sal bi nga xam te ni dañ koy naan pour wërgu yaram bi mën a jëm kanam. pour nag ñu mën a faju population yooyu dëkk si Diakfodé ak yeneen neuf villages yi dañuy def ay kilomètres yu bëri pour am benn structure sanitaire. Euh, dañuy dox pour dem Diaroumé mbaa Fawoul euh, mbaa Medina Wandifa Carrefour ak Bounkiling donc euh, vraiment yombul noonu. donc dañu am problème yu bëri bari bëri si yoon bi am nañu sax euh, seen seen kii euh, seen bakkan si yoon boobu bon dañuy jël ay charrette ak ay moto mbaa ñu dox euh, ba jaarume dix huit kilomètres vingt trente kilomètres ak lu teg donc vraiment loolu lu jafe la. gox bi nag fu mu nekk nii bénéficié wu nañu benn case de santé loolu nag benn doomu dëkk bi moo daal di jël engagement nekk di ko tabax. y a près de neuf. village yoo xamante ni ay dëkk yoo xam ne ñoo wër Jaka Fodé ñoom ñëpp dañu doon sonn ci wàllu euh, santé bi surtout jigéen ñi nga xam ne bu ñu tollee ci mucc dañu daan sonn bëri na jigéen yu ci doon loru bu ñu leen di transféré ci poste de santé bu jàmbati wala bu ñu leen di transféré au centre de santé bu Bounkiling mhm. donc ça dire que donc euh, construction case de santé bi dina ñëw soulager population bi bu baax a baax a baax ci wàll woowu. population yi nag di ne dañu bëgg autorité compétente yi ñi daal di ériger case de santé bi def ko poste de santé ndaxte infrastructure bi dafa remplir conditions yëpp maanaam lépp la fa nekk tax na ba mën nañ ko def poste de santé. jërëjëf Bakary Konte mbokk yi egsi nañ ci weneen a ponk ci la jotaayu xibaar di li ci yéen yi. économie jërë ngeen jëf koy seet ba ca biir coronavirus bi umpalewul ak malakal mawti ndax li muy faat bari na ci réew mi ubbi l'observateur ñeen fukki doomi aadama ak juróom-ñeent faatu nañu ci réew mi ci mbas mi fan yi ñu génn keroog samedi rek nee nañu xamle nañu fukki bakkan ak ñett yu corona bi jël soleil national nañu du ci samedi rek waaye ci samedi ak ci gaaw bi maanaam week bi li ñu am ci réew mi ci ay cas coronavirus am ko li nañu 19 décès 33 cas graves lii mooy bilan mbas mi ci week bi liise ko nañu moom koy wopp ji mi ngi fàtt lu mu mën di dem ci réew mi di gën di yokk di gën di law 19 décès ci benn week-end ñi coronavirus bi tëral ci réew mi ba ñu nekk ci loxoy docteur yi mu di malade yi nekk sous traitement yéenekaay bi nee nañu seenub lim bu doon benn la yokk na ba ci fukk ak juróom benn ci ñeen fukki fan yi ñu génn Le Quotidien nañu génn guñu ñu toll service journal Le Quotidien ne dafa am ay cas garaaw amit ay cas sévère li nekk ci centre de traitement yi ci ay cas sévère nee na jege nañu ñetti téeméer waa SAMES dig syndicat gu jabote ay fajkat ci réew mi ñoom li ñu jàpp moo di communication buy déng-déng bokk na ci li yokk joote ji docteur El Hadji Mamadou Ndiaye njiital prévention xëy di waxtaan ak waa Source A ci mbas mi ak ci vaccin yi ñuy séntu docteur Ndiaye nee na bu weesoo programme élargi de vaccination amul benn banqaas bu amee sañ-sañ mbaa mën-mënu di ñàkke nee na it bu dañoo bëgg a jëfandikoo yi il faut ngir su ñàkk yi yegsee ci réew mi ñu mën leen a denc denc ba xaar ndax ñoom député yooyee wote nañu loi bi rek moo di wàññi nañu seen doole dooleel président ndax bu boobaa daanaka pouvoir yépp ci loxoy président lay tege journal réew mi Quotidien tegal ñu ci ne commissaire commissaire Boubacar Sadio nee na l'armée bi ñuy dugal ci couvre-feu bi du lu gën laajte bi nañu li ñuy woowee ligne rouge ci feebar bi maanaam daj dëpp gi moom la Macky Sall janool journal bi di laaj ndax couvre-feu gi ñu yamale ci kees ak Ndakaaru dee su ko yaatal ba mu yegg ci yeneen i diiwaan ne coronavirus bi ni muy lawee gaaw na te yemu rekk ci Ndakaaru ak ca kees laajte bi dolli ñu ci ne feebar bi ak ni mu mel ci réew mi tax na xalifa général des mourides di Serigne Mountakha Mbacké Bassirou jël na dogalub dàq màggalu Poroxaan gi ak gu Mbacké Kajoor gi Kajoor ba Bawal Siin ba Saalum jàpp njàmbur ñépp di Diary Sow di France l'observateur xëy xibaar bi ci xëtamu njëkk libération feelu ko nañu juróom-ñaari fan ba mu réere ak léegi juróom-ñaari fan nit ñi nekk ko ci jaaxle les économies ca France ga mu réere am na fay doomi Sénégal yu fa nekk ñoo ngi wër di séddale ay flyers ngir bëgg jaari sow feeñ l'observateur nañu wax ji ñaar la ne bu weesoo jaari sow mi réer ca France am na it beneen xale bu jigéen bu réer ay mbokkam fii ci Ndakaaru Leena Géy la tudd dib élève bu toll ci fukket ak juróom benn moom it samedi ba léegi fan la ko jant bi di tim dafa réer xaalis bu bari moo réer ca chambre de commerce bu Ndakaaru jëfin la rek waaye dañu ko sàkkal pexe xaalis la bopp ñaari téeméeri million ak juróom fukk cib audit bu ñu def ca chambre de commerce ca la mbir ya feeñ kuy làqatuy màndi booy jàng di feeñ loolee tigi moo dal ñi ci l'observateur ubbil yéenekaay bi ay doomi diw maanaam fils à papa ay xale yu jigéen yu am jëkkër ak i diplomate journal bi nee nañu ñoo organisé woon ab piscine party ci Almadi ci digg jamonoy état d'urgence gi nag sàngara jaak misik baak tuxum chicha yi lépp doon bu Ngor moo fa wàcc leen jàpp ci ñoom ñeen fukk tey ji ca lañ leen war a defeere jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye beneen ab Mamadou ci beneen ab studio taxaw temb nag ngir daal di ñuy ficci li nga xam ne ah, moom moo gën a fës ci li ci internet bi Mamadou Ndiaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay euh, Cheikh Diop di nuyu téléspectateurs yi baaxoon nañu Euh, boo jeexalee heure bu ne ci semaine bi ñun euh, ñu ñëw man ak mairie tey altine bi may démarrer euh, incha allah. mairie ba suba nañ ko refas. mais mais Mamadou tey bëggoon naa def ab taxaw seetlu ndax itam. Uh-huh. li nga xam ne moom moo gën a moom laa gën a bàyyi xel ci weekend bi bokk na ci astak wi nga xam ne ay doomu réew yu nekk ca France ñoom ñoo ko daal di lancé muy retrouver retrouvons Diary Sow ak itam leneen loo xamante ni nemmeeku naa ko mu di compte Twitter bu Donald Trump bi nga xam ne daal nañ koy tëj bëgg naa nga dikk ci ak mbokku téléspectateurs yi. ngi rek ñu euh, gën a xam mbir mu ni mel. jaajëf mi ngi noonu def nga tey sax mi nga sunu laj tey fas yéene loolu lañ fa yéene waxtaan. Hmm, ci émission bi am na ci partie bu yaatoo yaatu mbirum jaari saw. mi nga hmm. xamante ni jaaxal na Sénégal jaaxal France ga mu nekk. Hmm. sénégalais ya fa ya fay nekk di ay étudiants. yëngatu bu baax ci weekend bi dinañ ci ñëw ak ay image yoo xamante ni euh, jëlee nañ ko ci internet bi ci kanam. jërëjëf kon bu ma noppee man itam damay dem toog seetaan Mamadou. comme su ma noppee damay dem toog li ngay li ngay li ngay indi. comme ni ñu koy baaxoo di defee rek heure bu baax. incha allah euh, incha